moo tax ma ne inna allazina amanu wallazina haajaru wa jaahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu rahufu rahim mooy ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla ba noppi gàddaay dox jëm ci loxo yàlla ñu ngi yaakaar yërmande yàlla waaye nag dañ xam ne yàlla ku leen mën a jéggal waaye ku leen mën a yërëm inna allazina amanu wallazina haajaru wa jaahadu fi sabilillahi ci yoonu yàlla ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu rahufu rahim kon yàlla moomu ñu dox jëm yaakaar yàlla neen dina leen jéggal ba noppi dina leen yërëm kon nga xam ne kon ñi gëm yàlla tout le yàlla nga ngi leen ni dalal ñu war a dox jëm ci li yàlla bëgg kon goo ku nekku ci yërmande yàlla moom ma ay mbiram moom ku nekku ci yërmande yàlla wax ma ay waxi yàlla yéen kon ku nekk ci ndigalal yàlla ak li yàlla bëgg mën ngaa yaakaar ne yàlla dina la yërëm yàlla dina la jéggal loolu amul sama dimti ñoom modax dax ñax kun in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim mune bu ngeen bëgge yalla da ngeen koy top bu ngeen ko topé ne yalla jéggal leen jéggal seen bakkar bu nopi yërem leen kun in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim kon ay yëpp day gën a tegtale yërmande yàlla bi ñuy wax rahim nim yaatoo ba nga xam ne tout le temps yàlla da koy jëmale ci jéggal saabu yàlla jéggalee rek yërëm moo ci topp arrahim yàlla yërëm na la inna allazina taabu min baadi zalika wa aslahu fa inna la gafur rahim ginnaaw ba ngeen tuubee nag yiwanal lu jëm ci seen kanam na ngeen xam ne yàlla dina leen jéggal ba noppi yërëm leen kon li rahim bëri na yum yaatoo bëri na yu nekk ci gannaaw walillahi maa fi samawaati maa fi lar yaxfir liman yasha wa yaazib man yasha wallahu xafur rahim kon li nekk ci asamaan ak lu nekk ci suuf lépp ñeel na yàlla yàlla moo jéggal ku ko sob waaye yàlla mooy mbugal ku ko sob waaye yàlla ku mën a jéggale yàlla ku mën a yërëm la yëpp day tegtale ne baatu rahim lu baree ngi ci lu lu loo xam ne nit ki mu ngi koy sàkku lu ko raw mu ngi ci gannaaw loolu nga xam ni moom lay yaakaar ci raxim moo tax ñu bëggoon cee indi ay taxaw leeral ci ay mbir yi nga xam ne raxim am na ci alquran ba nga xam ne yiw yi njëriñ yi ak yokkute yi nga xam ne taxaw na ci yàlla mën ko ubbee ay mbir mën a yokkee noonu nit ki nu góor góorlu ak ni nga fàttalee jëm ci boromam yàlla dana ko leeral euh, koo xam ne nag dangay bëgg yàlla di faj say aajo ba noppi yàlla ji la dimbale àddina ak alaaxira del si kar rahim yaa rahim boo ko mënee dee ko si kar dee ko si kar 1947 képp koo xam ne saxoo nga di si kar yaa rahim 1947 ala kulli xaalin àddina gi nga nekk de mënees na la fi bañ a yërëm alaaxira di nga dajeek yërmande yàlla te bu dee ci àddina fii loo dugg lu métti métti yàlla dina la ci génne te doo ci am benn tolof tolof loolu ku bëgg mën ngaa tàmbali euh, beneen bi ci toppaat mooy koo xam ne dangay ngay yuutu mbir mu dëgër demal nga jàpp ba sell julli ñaar rakk waxtu wu dagana naafile faati akub saar loo ci mën nga teg ko ci euh, soo noppee nga sikkar yaa raxiimu adadu latif mi 129 nga sikkar ko tegale ko juroom ñaari fan bu dee aajo ji wala mbir mom lu mu jafé jafé yalla mën na la ko yombal ba la mu wut nga am ci lu fo ko sa njort waaye sikar dana am solo waye nañ wax ku koy sikar bëgg mu jariñ la fexal ba yi ñu wax na deñ ci yow ngir yalla fexal ba kiñaan na deñ sa xol nit ki mëno kiñaan ba di di bëgg dara muy sotti loolu ta nek ndax yalla da defal nit teraanga ne yalla li nga defal ni waro ko def yalla dog kon ki ñaan baaxut day tax a jëm gannaaw bi ci desaat bokk na ci sart yi tax li ngay ñaan yàlla nangu ko mooy mottandikul di lekk lu xaraam nit ki lu say jaamu yàlla di bëri ak lu say mbir di bari te doo lekk lu xalaal pour nga ñaan yàlla mu sotti moo Sëñ Tuubaa de wa'taziru min ay ayqantumu bi kawnihil xaraam aw zanantumu laa yanfa'ul ilmu wala ibaada bi ak aklil xaraam de saada na ngeen xam ne lépp loo xam da ngeen ko njorti wala ngeen di xalaat daa wala xaraam motandiku leen da ngeen xamne yalla jaamu yalla ak top yalla mënut a wér ci ngay fekk ngay lekk haram la yan fawla an wala ibadati akli haram kon won di lekk lu haram ba nopi bëgg jaamu yalla wala nga bëgg am xam-xam mu nangul mënta nek kon lekk lu haram lu wata watandiku la yeen dina sa waxon na wajo xamne karal gi da sekk lol yere yi musal haram di lek lu haram di nan lu haram di teddu ci lu haram naka lay ñaana yalla mi nangu fa anna yusajabu lahu naka lay ñaan yalla nangu kon bokku na ci sart yi tax nga mëna ñaan yalla nangu yow nga nekk ci lu dagal ba di dox jëm ci lu dagan mo dañ lay wax ni képp gom da nga bëgg ñaan sart yi dañ koy tek moy foo nga watandiku fen fen moy wax lu amul foo nga watandiku jëw moy di wax nit ki ci kaddom ci lu ñaaw bu ko déggé bu ko déggu yëpp mo ci yam di wax ci daram lo xamni bu ko déggé ba ci alalam du ko neex mu téwalam ñaka téw bi ci dessat ngay lekk lu dagan bu ci desaat ngay jaamu yalla te diko senlal yi ay condition la ko xam na nga bëgg ñaan yalla mu nangu bo doxé jëm ci anam bu melni ala kulli yàlla yalla mëna dimbal kon képp ko xam yaangi ngi rahim nak bëgg yalla nangu li ngay ñaan fexal ba fenn mom nang ko tek ne moy fenn wax lu amul bu ci topat na nga dindi ki ñaan ki ñaan moy nit am dara yéene woo di japp sa bir xol di naan diw lim yor yalla na yàqu nga di xalaat sa xol di wax diko jëf lol baxut day dox ci kiraale sa diggante sa borom do meuna ag te la ngay ñaan yalla don ko man ko nangu waaye dala koy tegal ci barab ba ki ñaan gi denc yow mu dog la koo jox euh batay bokku na ci sarti ñaan fur mu nangu ngay lek lu dagan tay jaamu yalla tay selal ngay jaamu yalla tay selal boo ko jaamu yalla gën dafa tax da am na ñoo xam dañuy dañuy jaamu yalla kenn xam lu ñuy def ndax parce que li ñuy def du lu yalla santane mu loolu bokku na ci sarti yi nga xamne ne su fekkee nit ki bëgg na li muy ñaan yàlla nangu ko na fexe ba génn jikko yii ma wax ci moom te dox jëm ci yàlla kon aajo ju faju bokk na ci même boo sikkaru benn tur fexeel ba kiñaan ak rëy ak soxor ak jëw ak rambaaj fen xeeti jikko yi bu deñee ci yow même boo sikkaru benn tur sa saa boo ne allahuma yàlla nangul la waaye xeeti jikko yi bu nekkee ci yow yoral tur bu gën a baax ci tur yëpp ba noppi jikko yi nekk ci yow du ñu li nga ñaan yàlla nanguwu ko de waaye yàlla dina ko tegal ci barab ba keroog jikko yooyu dañ ci yow yàlla doog la koy jox kon loolu day dox kiiraay la boo xam day tax li nga bëgg du mën a sotti waxtu ba nga ko bëggee du mën a sotti moo tax alaa kulli dañ ko doon leer laale pour mu euh, leer ci boppi nit ñi euh, koo xam ne da am xale boo xam ne day faral di jooy lool jooy guddi lool nga bëgg yàlla suñu boom def ci taw feex ba mu noppi bindal ko yaa raxiim 66 fois nga def ko téere mu takk ko moo xam téere baat wala téere ndigg wala téere lox bu ci jàpp ni nga defal ko mu takk loolu yàlla dina ko musal bu baax ci xeeti jooy yooyu même xale boo xam ne seytaane da koo jàpp wala nga jàpp ne dafa am feebaru seytaane même soo ko bindalee yaa rahim quatre-vingt-dix-neuf fois mu koy sangoo moom bépp loolam tiit ci moom moo xam gàllankoor seytaane wala ngelaw yàlla mën nay dogal mën naa denc ci moom ba set wicci eh, ba tey it mm, na ci koo xam ne rab da koo jàpp moom da moom da ngay daal di bind lu moom ñaar yi ngay bind da ngay bind yaa rahmaan yaa rahim yaa rahmaan yaa rahim ngay bind mu boole koog parfum yu neex mu def ko cangat fukki fan ak ñaar lépp lu nekk ci moom bu dee rab wala seytaane mu koy sangoo ala kulli xaal yàlla dina dogal loolu dina denc moom ba set wicc ba gàllankoor yi ngay tiit mën na cee mucc euh, beneen bi ci toppaat euh, koo xam ne nag. danga bëgg nit ñi jox la cër danga bëgg nit ñi jox la cër bu baax booy faral di wax wala ngay faral di nekk ci mbooloo moom it dangay sikkar yaa rahim cinq mille neuf cent quatre-vingt-quinze nga koy sikkar mooy jàpp adadul nafs adadul mindeef yëpp nag mooy cinq mille neuf cent quatre-vingt-quinze nga di ko sikkar yaa rahim waxtu bu mu jàppandee ci yow waaye budd nag mooy di ci gën pour yépp ku ko bëgg di liggéey bëgg-bëgg ci am ijaaba fekk nga jikko yi ma wax mu denc ci yow dee ko sikkar guddi guddi moom képp ku ciy liggéey tur yàlla pour nga am ijaaba day yomb bu ñu waxee guddi nag lu tàmbalee ci deux heures wala une heure jàpp bët set waxtu waxtu ñaan yàlla la waxtu liggéey la ci kurus waxtu jaamu yàlla la waxtu loo xam ne boo ci jaamu yàlla pour mu nangu day yomb loo ci ñaan niwaan nga du ko gis fekk na jikko yi ma wax yëpp dañ na ci yow ki ñaan ak bëgg ak soxor ak fen ak yëpp bu dañee ci yow nga liggéey liggéey waxtu yi bokk na ci xeetu mbir yoo xam ne mandarga la pour nga mën a liggéey sa tur li ngay liggéey mën a sotti nalaw guddi bam jeex nag ku koy def pour njabar la jàppal day yomb képp koo xam ne yaa ngi tëdd guddi ba bët set nga nalaw ko yow moom séentul ne njabar la jàppal day yomb waaw koo xam ne dangaa tëdd ba guddi nga yeewu donte ñaar rak nga jul tëddaat njabar la sax la yomb ndax parce que yàlla danaan sama jambi bi maa ko jaral mu jug rek tax yi fi wax yépp nang ko def nag yéene ji si yàlla te yàlla tax waxuma nag nga di def ngir tur bi kat daa bëgg maye mbooloo kon naa ko def pour maye pour mbooloo kon yàlla dalay dalay bàyyi mbooloo ma rek la nga bëgg ci àdduna mu jox la ko boo liggéey la nga ci doon seen ko gis dara loolu it lu mat di bàyyi xel ndax yàlla du nit nit mooy nekk fii di am lu muy bàyyi ak li muy jàpp lam wax wax na pare